anu Kolda la ñu jëm ak lu soxol élection législative bu premier er juillet yi di ñëw ndaxte nag ña fa nekk handicapé ca diwaan ba di wëyëk laagu ñoom nag wax nañ ni daal candidat wala coalition bi nga xamante ni nag moom mooy taxawu seen i jafe-jafe moom la ñuy woteel handicapé yooyu nekk ci diwaanu Kolda nag ñu ngi amal nag tournée de sensibilisation maanaam di wër gox nga ngir yëglu reportage suñu natango Bokar Kandé ci village de lépreux maanaam bërëb bu ñu jegleel woylaago yi fii ci Kolda bëccëg gi ñu fa dëkk dañuy daje di waxtaan ak yi foo waaye ñu gis ne nag ñu gën a bëri si ñoom xamuñu seen i ak ak yeleef moo waral nag ki jiite seen i kuréel ci diwaan bi takk ndigam dem di leen rencontrer ñaax leen ci droit de vote ëpp nañu ñaari junni ak juróomi ñaari téeméer woy laago yu ñu recensé ci diwaan bi waaye ñetti dong si ñoom lañu ñu investir ci liste électorale yi. handicapé parce que bokkuñu si benn liste. kon teg tamit dañuy déglu avec yi loolu moo tax ñun léegi ñu leen di former ñu leen di sensibiliser pour ñu xam fan la ñu war a a teg seen tànk pour ñu mën a défendre seen droit ak seen village bu nekk actuellement village bu nekk mu ngi ci biir collectivité locale bu nekk def nañu fa sens benn réunion ñoom nag wax nañu jeex na jóg rek votel ñoo xam ne seen i programme du jël en charge nu ñuy saafara jafe-jafe way laago yi. nañu voté programme du ñu voté nit que ça soit clair ñu leen rencontré ñu nekk ci liste yëpp. pour seet ban programme moo mun a moo adapté ak suñu problématique fan la ñu war nag mën gis suñu bopp ñu jàppale ñu ci baatam ñu jàppale ci zahir pour que demee bu demee assemblée mun a défendre suñu problème parce que bëgg naa en tout cas 2013 ku fi ñëw fekkee tabax naa kër yëpp. ci village des reclassés maanaam dëkku wëylaago yi askan wi dañuy jànkoonteel ay jafe-jafe yu bëri ci wàllu wér-gi-yaram ak jàngale 1950 ba léegi ci teen bi lañuy ñuy jëlee ndox bu ñuy jëfandikoo.